waajal tabaski euh, le ministre Moussa Balla Fofana ministre des collectivités territoriales ñoo na tey jii julli si fi nga xamante ni mooy dëkkam di Diourbel waaye bi mu dikkee il a effectué une visite au niveau de la ferme de El Hadj Djibril Sow bi nga xamante ni Seydou Sow le jeune entrepreneur moo ko yor Moussa Balla Fofana bi mu dikkee comme à l'image du président de la République Bassirou Diomaye Faye jënd lu dul xar mu xamante ne nii cent cinquante mille la donte ne sax ne dañ ko ci defal xéewal ñu xool déglu Moussa Balla. vraiment teg ñu ci ci gis seen bopp te Sénégal lii la bu ñun ñëpp kenn ku ci nekk ñu ko yàlla jox. Mhm. bu ci defee yërmande rek. Mhm. réew mi day neex. mais kenn bu transporteur bi teengalee. Mhm. municipalité bi teengal état teengal jaaykatu xar bi teengal rek. ñu njaboot di sonn. voilà te ñun ñëpp benn lañ. benn waaw ñuy transporter. ñuy fayeeku nit ñi courant ñuy jox nit ñi ndox ñuy jaay xar yi ñuy nettoyé ñun ñëpp bu ñu paree ci kër yi la ñuy dellu donc lépp nañ ko ànd ak ci yërmande yow nag suñu rakk nga dul dara tu es un jeune frère am ambition. Mm, mm, mm. et nekk ci li nga nekk ànd ceeg Pastef bu mot sëkk. waaw te loolu bu ñu ko gisee dañ ci am fierté. moo tax tey moom bi ñu ñëwee man ne lu mu guddi guddi. nañ dem ci sangam. Euh, vraiment wut fa xar. parce que wutaguma woon. nga ñëw fekk ma fekk fi lii. xam naa nag ne moom prix moom da nga cee def da cee deful addi yàlla waaw moom loolu lay gën a niróo. mais lii moom ko gis xam ne vraiment macha allah. macha allah jërëjëf jërëjëf kontaan.